yooyee xibaar ci guddi gi ñëw ak yéen ci tàggat yaram sport weekend ngeen ànd ceeg Pape Malick jaw sport weekend mi ñuy tàmbalee football ak li gënoon fës ci weekend bi di football bi lee daroon euh, wala bokk coupe du euh, Sénégal final bi doon dox ci diggante jaraaf ak ki nga xamee ni moom moo di euh, Stade de Mbour ki nga xam ne moom moo di jaraaf nag daal di jël raw gàddu gi ak fukk juróom bennee lu raayam ci boobule compétition gannaaw ba mu daanee ci jogante gu séere te métti loolu kii di Stade de ñaari bal ci benn daanaka sax boobule final ci pàccu match bu njëkk bi lañ daal di xam dee ak ñetti bi yi nga xamee ne daal dina cay am ñu ànd ceeg Soda Thiam. Jaraaf daal koy def maanaam am fukk juróom-benneelu titre ci coupe du championnat bi xamoon nañu aussi seen jafe-jafe sur les balles moo taxoon semaine bi yëpp ñu insisté si tey moom la xale yi dugal si ci ñaari bi doon. Stade Mbour nag ci noonee kon daal dinay ñetteelu finalam coupe du Sénégal ak ñaareel ci saison giile gannaaw ba mu ñàkkee coupe de la ligue bi loolee nag di déception ci kaleen di tàggat di Abdoulaye Diakhaté waaye nag amul lenn lu muy wax ay joueur am. xoolee dañu jël ay bit yoo xam ni maanaam bit la yoo xam ni waruñu ko woon jël si surtout nga jël ko ñaari yoon maanaam li nga xam ne doo ko farataal en général si match yu mel nii su ñu doon na ay final moom moo lay gaañ parce que buñ ci buñ xawoon yeewu tuuti rek mën nañu am dara ci final bi mais équipe bi dafa desoon tuuti ndëgër laay match yi genre lii ngay ñàkk ay maanaam coup franc wala bal arrêté ngay xool jaraaf du combinaison wala du dans les jeux la ñu dugalee but au contraire ñun sax dugal nañu but boo xam ne dañ ko travaillé dugal ko mais football moo demee noonu fay di lépp de lépp c'est xam ne lépp moo ci bokk lépp am donc ñoom bal arrêté la ñu dugalee ñaari bal arrêté donc du def lu dul muñ rek jaraaf nag ci noonee daal dinay saison am ak trophée coupe du Sénégal gilée naka noonu titre meilleur gardien bi portier wam bi di Abdoulaye Diakhaté gàddu Soda Thiam Mouhamed Gueye moomee mu daal di wax ci daaneelug boobule compte rendu ci moom la ñu daal di ñëw ndax moom moo gën a fës ci jogante bi ànd kook ay coéquipier am ndax moom moo daal di amal amal ab doublé ci boobule eh, jogante gannaaw ba nga xamee ni eh, ci pàcc bu njëkk bi 45 minutes yu njëkk yi ci la daal di amal ñaari bi yu tax jaraaf daal di jël boobule final coupe du Sénégal ñu teewlu ko moom ak Soda Thiam. ci am sax bu rëy bu rëy bu rëy parce que mun naa ne ñëpp nga ñëpp ñëpp nga koy seetaan donc lu dul contentement bu rëy dañu nekk doon benn engagement bi lépp pàccandoo dóorandoo début saison bi daan moom see lu bëri si bam bi laa doon doon ñu sax convoqué mais dañ ne loo mun rek mu fekk la fu contentement bu rëy yàlla daal xol lay fekk final moom c'est la fête mu doonoon Mouhamed Gueye mi doon kon double buteur ci boobee final ci jaraaf ba tey la ñuy daal di desandi ndax ki nga xam ne moo di seen directeur technique national di Cheikh Sidi Ba moom itam amal ay kaddu ci boobule final gannaaw ba nga xamee ni moom jàpp na ni ci championnat bi bi mu leen leeree ni mënatuñu woon dellu si ngir nekk champion du Sénégal ci saa si lañ daal di gestu ne mënta ñàkk nag ñu àddu ji ci li nga xam ne moom moo di coupe du Sénégal daal di amal seen fukk ak juróom-benneelu euh, raaya ci bile compétition ñu teewlu ko moom Cheikh Sidi Ba. soulagement moom la ñuy am ndax match bu metti moom la ñu amoon te itamit jaar nañu ci ay moment yu jafe waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ba loolee amee taxawuñu dañoo liggéey ba tey te tey jile gis nañu li nga xamee ni moom moo di résultat bi bi ñu xamee ni dañoo perdre championnat bi mën mënañu ci dara dañoo taxaw daal di waxtaan suñu biir ne léegi nag mën ta ñàkk ñu jëli li nga xamee ni moom moo di coupe du Sénégal te tey jile loolu la ñu réussir léegi nag xëy na duñu am temps wu savouré bu baax a baax bi le ndax championnat bi mi ngi nii di ñëwaat suñu kanam waaye nag tey ndam lu rëy la pour club bi nga ni toog na ay at dellu siwul fii mu toll tey jile kon dañoo dellu siwaat ci histoire te itamit di santaat yàlla di jaajëfal bu baax a baax suñu ndaw yi la. mu doonoon Cheikh Sidi Ba directeur technique national bu jaraaf boobee kon jël boobule compétition ci match bi li ñu des ci ba tey ak ki nga xam ne ni moom moo di Amadou Ba moom mi euh, ministre des sports di premier ministre itam moom mi teewee woon boobule jogante ca stade Abdoulaye Wade di félicité bu baax delloo njukkal acteur république bi rawatina fédération bi nga xam ne ni jàpp ni jàpp na ni amal na ab euh, taxawaay bu mucc ayib ci euh, football rawatina ci tàggat yaram jamono jile Cheikh Tidiane Diagne. final bi dañuy sant yàlla ndax coupe du Sénégal la. muy jogante boo xam ne ay doomu Sénégal ñuy foroon daje. ci tàmbali bi wax nañu ne téeméeri équipe la woon. ñaar ñoo ci desoon muy jaraaf ak euh, Mbour yàlla dogal na ni jaraaf moo gagné ñu leen di félicité di ñaan yàlla ndam li jig leen mais li ma leen doon wax démb rek mooy ñaari équipe yëpp ay équipe bu Sénégal coupe bi ma ci jaraaf la mënoon dem Médina wala mu dem Mbour waaye du génn Sénégal ñoom ñëpp ay ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk bay gis nañ ci football bu mañ mucc ayib gis nañ aussi supporters yi bari nañu muy euh, ambiance bu xumb lii la ñu bëgg ci sport mooy nit ñi ñëw ci jàmm ak salaam seetaat supporter ku nekk di wax li nga xalaat bu ñu paree ki gagné ñu xam ne moom moo gagné ñi ñi ñu gagné félicité ko li geste bi nga xam ne ay see Mbour def na ko léegi maanaam dem ci supporters yi jaraaf yi pour féliciter leen pour encourager leen bokk na ci yi nga xam ni war nañ di ko wone war nañ di ko fàttaliku en terme de du sport mais leneen li nga xam ne gis nañ ko fii ma ci félicité fédération bi ginnaaw organisation di félicité public bi ñi tax mbir mi neex mooy tey fédération bi reconnaître liggéey bi nga xam ne président def na ko ci wàllu sport jox ma ay décoration yi nga xam ni moom moo ko moom pour nangu ni li mu defal sport rawatina football ci wàllu infrastructure gis nañ ko li mu defal sport ci football mais rawatina football ba mu may ñu ndam yi ñu mu may ci at yi ñu mujj gis nañ ko incha allah dinaa leen danaa ko jox président mu doon doonoon Amadou Ba ministre des sports moom mi premier ministre ci jongante boobu mi woon jaraaf kon fàttali mi daan Stade de Mbour ci final coupe du Sénégal ñaari bal ci benn muy pàcc mu yaatu bu ñu jagleeloon ci sport weekend boobule final wax ci compétition africaine yi ak euh, guddi gu tiis goo xamee ni moom lii di club yi le di jaraaf ak Casa Sport la bokk Casa Génération ak Casa Sport tey jile daañu am jafe-jafe ngir daal di nelaw ndax ki nga xamee ni moom moo di Génération Foot ñu tàmbalee ko ci premier tour préliminaire Ligue des champions moom koy daal di éliminer gannaaw ba nga xamee ne ci fàttali ci match aller bi foofee ca Guinée app 0-0 la fa daal di amuloon waaye nag ci match retour bi ni ki tey foofee ca Stade Lat bu Thiès euh, li nga xam ni moom moo di ndaw euh, Balla Djiba yi ñoom ab témbo lañu daal di def euh, ku ci nekk dugal ñaari bi daanaka sax ci jeexitalu match bi ba mu desee ñetti simili ci la Guinéens yi daal di égaliser ci noonu kon daal di qualifié ci deuxième tour bi ndax ñoom deux buts à l'extérieur la ñuy daal di amali ci jamono boo xamee ne moom génération foot deux buts à domicile daal di koy amal ndax amul benn but fële ca Guinée na kon moom génération foot ñu daal di koy éliminer du bokk ci deuxième touru Ligue des champions bu kaaf euh, euh, ba tey ak euh, boobule élimination ndax loole itam moo daal di daal Casa Sport moom mi doon jongante premier touru coupe kaaf ñoom ci seen match aller ci fàttali fii. ci stade Lat Dior bu cees ñoom itamit daaloon di témbo ci seen diggante ki nga xam ne ni moom moo di euh, ñii di waa ñii di club boobee di étoile filante bu Ouagadougou fàttali ni ku nekk benn bi nga daaloon di dugal ci retour bi nag foofee ca euh, Guinée 0-0 la ñu daal di def ba tax na ñoom euh, foofee ca Côte d'Ivoire la ñu doon amal match retour bi kon 0-0 bi ñu daal di def day daal di tax club bu Burkina Faso bi lee di étoile filante bu Ouagadougou ak but à xamee ni euh, daal di na koy euh, amal fii ci Thiès ci noonu daal di qualifié éliminer kon ki nga xam ne moom moo di Casa Sport ci premier tour préliminaire li nga xam ni moom moo di euh, coupe CAF football ba tey ñu woyal ko ca bitim réew ak yenn ci ay résultat tàmbalee ko ca France ñetteelu ayu bis kii di Lorient moom daal di daan daan gu di sax Lille ñeenti bal ci benn. ak euh, première minute wala boog euh, simili yu njëkk yi bu Formose Mendy doomu Sénégal moom mi nga xam ni bokk na bu baax ci boobale victoire ci euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Lille ci boobee jamono Metz moom ak titularisation wu Lamine kamara daal di daan Clermont mi mu fekk si Clermont bu Mori jaw ku ci nekk wala boog Metz moom moo dakaay daal di daan benn bal ci dara ci ñaareelu pàcc bi sax ki nga xam ne moom moo di Ibou Sané dal di nay dugg yeneen résultat kii di Strasbourg bu Habib Diarra daan ñaari bal ci dara Témbo ku ci nekk dugal ñaari but Reims fekki Montpellier daan ko ñetti bal ci benn ak Témbo 0-0 ci diggante Nice ak Lyon ca Angleterre Manchester City. fekki Sheffield United daan ko ñaari bal ci benn Aston Villa ci boobee jamono ma ngay daan Burnley ñetti bal ci benn Liverpool moom ab remontada lay am ci digganteem ak Newcastle mi ko jiitaloon benn bal ci dara waaye nag gannaaw rouge bi nga xamee ni euh, kii di Virgil van Dijk amal na ko Liverpool taxawul benn yoon dellu si waat ci euh, boobu lay jogante ba daal di daan ñaari bal ci benn ak doublé wu Darwin Nunez ca Espagne Barcelone moom ci match gu jafe la génn ci digganteem ak Villarreal mi mu noppi daan ñeenti bal ci ñett Osasuna moom ma ngay daal ñaari bal ci benn jeexal ko ca Allemagne ak Italie nga xam ne ñoom ñaar ñi la yëpp seen ñaari lu bëccëg lañ doon wéyal Bayern Munich daan Augsbourg ñetti bal ci benn ak doublé wu Harry bile Tembo ci diggante Mayence ak Francfort ku ci nekk dugal benn but ca itali ñaari lu bi ba tey Tembo 1-1 ci diggante Juve ak Bologne Fiorentina naka noonu Tembo ci digganteem ak Lecce ku ci nekk dugal ñaari bi ci boobee jamono Genoa ma ngay fekki Lazio daan ko benn bal ci dara ak Naples bi daan Sassuolo ñaari bal ci euh, dara bu ñu jubalee ca Arabie Saoudite ak euh, match bu njëkk bi nga xamee ni euh, kii euh, di mbay Diagne daal dina koy amal ak clubam bu yees foofee ca Arabie Saoudite di Al Kasidiya euh, ñoom mi le nag ci boobee joganteem gu njëkk ak bu la cay daal di amal ba tax ñu am sax ndam ñaari bal ci benn ci kaw Al Batin ci boobe jamono itam foofee ca Qatar Abdou Diallo itam amal simileem yu njëkk ci Qatari Star League moo di championnat bi ak li nga xamee ni moo di Tembo bi dox ci clubam bi di Al Arabi ak kii di Um Salah ku ci nekk dugal benn bu jeexal tàggat yaram basketball ak lii di résultat huitième de finale Euh, ci li nga xamee ni moom moo di coupe du Sénégal ci wàllum góor ñi ñu jàpp yële résultat USO daan bopp 72 70 AS Ville de Dakar daan ki nga xam ne moo di ay Thiès 66 34 Duc naka noonu am ndam ci kaw ASFA 73 43 Douane daal di daan ki nga xam ne moo di US Rail 66 55 ak euh, Louga basket club ni nga xamee ni moom ma nga noppi woon ci jiital euh, ki nga xamee ni moom moo di Mermoz ci boobe jamono fàttale ni GIA UGB ak Port. ñoom noppiwoon nañ ci qualifié laata boobule bëccëg kon mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci sport weekend mi ñu àndaloon ak Matar Samb jaajafal leen ci ànd gi.